Ah, le poste là mais mais mais xam nga yéen da ngeen am ligne. da ngeen am ligne e eh, ce qu'on voit actuellement. Euh, on entrevoit on voit. Euh, des inéluctibles de Ousmane Sonko. comme qui. Eh, yoo xam ne bu ñu sañoon Ousmane Sonko mooy doon le candidat. comme qui. on voit euh, des gens qui sont eh, qui qui prennent en charge le le le combat de Diomaye. Euh, Ousmane Sonko lañ ne moom moo porté projet bi Ousmane Sonko lañ ne ba ñuy defar projet bi moom moo war a nekk président mais on est en politique en politique les y a pas d'enfant de cœur Ousmane Sonko tey bu joomaay jëlee réew mi nekk président. Mhm. que devient Ousmane Sonko on a posé la question à ah. El Hadj Malick euh, El Malick Ndiaye mu mu mu mu tarxiis euh, mu mu mun na nekk mun na mun na nekk mun na nekk coacham aujourd'hui on sent. Euh, benn pour la première fois d'ailleurs benn genre euh, fracture euh, même si c'est pas très prononcé au niveau de Pastef et beaucoup de gens qu'on n'entend pas non xam nga xam nga ñun on a beaucoup de choses xam nga tey Diomaye bu nekkoon président yàlla na ko yàlla def bu nekkoon président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko da koy jàppale li muy occupé ça reste amul amul noonu solo parce que socc ak def si la bu nekkee premier ministre bu nekkee président Assemblée nationale bu nekk waxaar rek xaar rek xaar ma ñëw bu nekkee lu ko <laughs> neex waxaar ma ñëw rek bu nekkee lu ko neex moo mais ñun xam nañ jomaay du traître man bu nekkee am na nit boo xamante ne mën naa waat ci moom jomaay ci la bokk je vous le di très clairement parce que xam nga parti boo xamante ne amul xaalis amul dara ñëw ñu fa pour xaalis pour liggéey moo ñu fa indi nga gis nit effort yi ñuy def ak leen mbir yi jaral risque seen vie cest que ku mel noonu yii nii feesul bëtam te li gënoon yomb moom station yi nekk rapproché yu pouvoir wala def ay feeru tàppale moo gën yomb ku mel ni Ousmane Sonko affaire bi tegu ci bakkanam gis nga effort yi mu doon def nii yëpp da ko def par bëgg bu mu bëgg askanam mais wallahi azim affaire yi feesul bëtam te gis nga affaire candidature yi avant que les gens n'en parlent depuis longtemps depuis très très très longtemps même que nii nii nii sax avant que le nom de mais ñu bëri xamuñu parce que loolu c'est des éléments assez te warul exposé mais li mu lay wax nii man lu ma xam la donc président Ousmane Sonko Diomaye falu président Ousmane Sonko mën a falu après moom wala président Ousmane Sonko mën a nekk président assemblée nationale bu ñu demee ba sa kanam Diomaye démissionné jox yooyu yëpp ñu koy wax ay schéma yu dul jeex nit ñu koy wax wala mu nekk premier ministre ko mu eggali mandat am après mu posé ka a nekk la mais xam nga la projet pour lequel nous nous a nekk la. lépp ay schéma yu mën a nekk la bien sûr. ay schéma yu mën a nekk la sénégalais yi prononcé wu. fal nit président nit nit kooku pare pour trahir le la la confiance des sénégalais jox kenn mu mu mu mu yeggale yéen li ñuy wax naan boo leen jëlee réew dina am man koy bëgg a gëm de benn crise institutionnelle ah, non non même ah, na si on élit quelqu'un même na doucement xam nga may sugee la xam nga nit yi gymnastique intellectuelle mënuñu koo bañal kenn les gens réfléchissent et les gens disent ce qu'ils pensent. Les gens n'ont pas la position de Sonko, les gens n'ont la position de Diomaye. Si Sonko, si Diomaye était élu président, ils n'ont pas sorti de communiqué, ils n'en ont pas parlé officiellement. Nous essayons d'avoir un candidat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, xam nga Diomaye ngay wax mais auquel cas Diomaye bu nekkoon candidature am dañu ko invalider dañuy am candidat bu nekkoon sax ñiy choisir ñëpp validé wuñ ci kenn parmi les gens choisis dañ ci xool koo xamante ne yaakaar nañu war na mën a porter projet ñu kii la ñuy voter donc boo mënee loolu wax ma la nga mën koo xamante ne yeneen nekk di xeex pendant dix ans mbir yi fii positionné amul solo man sama classe ñu ngi liggéey Pastef te daanaka à part membre du du cabinet de Ousmane Sonko ak lu ñu dénk euh, euh, juste balaa ñuy jàpp noonu amuñu fa te pourtant effort bu nit def ñu pare nañ pour def ko que bëgg nañ affaire yi gëm nañu te kenn ñu fekk fu ñu koy xarabale wala fu ñu koy ñàkkalee fayda Ousmane Sonko affaire yi dépassé na ko fa moom gën na maanaam. gënuñu ko dëggu quoi c'est-à-dire que li ko mbir yi jaral dépassé na foofu. te te j'ai eu de t'appeler l'un des hommes de France. te bu àndoon oui non non lii moom dafa sax lii naa ko def xam a c'est-à-dire c'est-à-dire que cest à mais yow da nga gëm waa ji. non non non xam nga may may mun ah, en parles comme comme comme comme on parlerait d'un ange d'un homme sorti euh, non mais. mais mais mais Fadil Ousmane Sonko c'est un homme politique on est dans l'espace politique. mais ah, mais c'est pas un ange Ousmane Sonko. Bassirou Diomaye c'est quelqu'un de bien man yàgg naa njortu ne Pastef bu Ousmane Sonko nekkul candidat. Bassirou Diomaye mooy nekk candidat bettu ma xam nga lu tax bettu ma parce que tamit xam naa ancrage am xam naa liggéeyam te à travers des émissions dama doon gis ne à part Sonko si y a une deuxième personnalité adulée ñu bëgg ko à Pastef c'est c'est c'est c'est Bassirou Diomaye mais Fadilou on est en politique. non nga non on mais gis nga relation bi ñu am ñun ak politique relation bi ñu am ak état ak institution bul fàttali ñun ci administration la ñuy liggéey bokkul ak ñeneen ñi relation bi ñu am ak politique ñenn ñi toog yenn station yi pour am lu ñu am ut lu ñu am ak yooyu noonu mun bu nekkoon yàqamtee am dara mun na am li gën a yomb moo doon dem ci beneen camp bi te defuñu ko ba ba léegi ñu ngi ñu ngi taxaw suñu si si li ñu war a nekk.